bawol info point net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor bawol info net ay journaliste yu xarañ te mën seen liggéey www.baolinfo.net ay chronique yu yéeme ay investigation yu leer baolinfo.net le portail du Baol sur le web kaddu yi dana koy jëmale njiitu réew mi ñu koy adressé njiitu réew mi muy président Macky Sall brigade de recherche dama ko dégg fii ci sama buntu kër xam naa ni sax seen liggéey lañuy ñuy def waaye ma bëggoon rek lu ñu gën a man ci rafetal ak settantal ñu def ko ndax foo dem muy fii muy feneen foo dem ñu juba nga fa ñu jubadee nga fa waaye ñi juba di itam ñaare bu ñu leen dee jàpp di yóbbu itam dafa am façon jamono bi ñu nekk nii Afrique dafa sensible moo tax fi ñu toll nii li may wax président Macky laa koy adressé pour mu wax ak ñi koy liggéeyal ñëpp ndax lu tuuti rek mën na jur jéeyee joo xamante ni bii kenn du ko mën a fay dëgg la seen liggéey la ñuy def waaye man li ma leer mooy njaboot gi nekk ak man ñi ci dëng ñi ci juba ëpp yow ma amul ñu dëng de ndax man ñu dëng ñi ma leen daan jëli ci gorot yi di leen manœuvrer ba ñu jub ñu leen di gis tey ñëw sol yu weex tal di tudd tur yàlla di jàng xasaayit fi dem nag am na ay benn benn yu dëng ñi dëng nag foofu la ëppee ñi dëng ci waa kër Macky la ëppee ci ñi nga xam ne les tenants de les tenants du pouvoir ñoo ëppale ñu dëng waaw te feeñul ba tax na nag yi nga xam ne mooy feeñ moo xam fii ci man moo xam ci feneen buñ ciy def seen liggéey itam dañ ko war a façonné nu mu gën a rafet waaw loolu daal moom président bi ci boppam laa koy waxal ndax itam dafa am loo xamante ni bii inal xasanaati yusirna sayiaati xale yi benn benn yi ci dëng yi itam li nga ñi nga xamante ne bii ñoo ci jub ñoom la ñuy muñe ñi ci dëng fu ñëpp jubee amul bu dee ñun nag bu dee ñun li suñu suñu ñun suñu philosophie ñun ñëpp daanaka ci kaso yi lañu war a dee ngir ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul waaye bu ma sañoon daal brigade de recherche du ñëw fii di am ñu ñuy seet wala lu ñuy seet wax dëgg yàlla jiwuma ko réew mi jiwuma ko état bi te yow Macky jiwuma la loolu loolu nag maa ngi jël waa réew mépp seede wasalaam. Baol info net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor Baol info net ay journaliste yu xarañ te mën seen liggéey www.baolinfo.net ay chronique yu yéeme ay investigation yu leer Baol info point net le portail du sur le web.